salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ci ànd bi ngeen ànd ak seen kàddu ci li nga xam ne moo di seen actualité de la semaine ci biir semaine ñu gi bi ñu génn nag li nga xam ne ni gënoon na nekk na nga xam ne moo di euh, année blanche bi nga ñi ngi nga xam ne ñu ngi koy lam-laamee fii ci Sénégal kii di ministre de l'éducation nekk Mamadou Talla moom nag àdduna ci loolu la di leen waxtaanee tamit li nga xam ne moo di wàllum force Covid bi nga xam ne xeex corona mi ngi wéy fii ci biir Sénégal ak euh, aide alimentaire bi nga xam ne mi ngi lëmbe dëkk dëkk bi boobu ba léegi dañu waxtaanee tamit wàllum confinement bi nga xam ne kii di professeur euh, Seydi moom euh, àdduna ci keroog restuti ñu yaatal leen xibaar yi mu gën a leer comme ni ñu leen ko waxee woon ci boppu xibaar yi wàllum année blanche bi nga xam ne boobu ba léegi mi ngi euh, wëy di indi coow fii ci biir dëkk bi ginnaaw bi nga xam ne kii di le président de la république joxoon vacances yi nga xam ne moo di bépp élève ak étudiant fii ci Sénégal pour 45 jours loolu nag mi ngi ko jublu woon ci xeex wàllum coronavirus kii di le ministre du Talla nekk le ministre de l'éducation nationale moom àdduna si nee na année académique bii ni dina seen et li nga xam ne moo di wàllum li ñuy tuddee année naa ñàkk ci boobu ci fii di Sénégal mbokki internet di nekkul ni coronavirus wàllum jàngameeg njàngale mi lekk rek la laala ñi nga xam ne moo di tailleur nekk fii ci Sénégal ñoom nag àddun nañ ci wàllum feebar boobu la ki nga xam ne moo di Mati Sarr ña euh, demaloonu ab utanu ci ab coronavirus bi mu dugg see Sénégal ñaari fan uh, ci wéru mars boobu ba tey jii la nii bëri na secteur d' activité yoo xamante ni dafa daal di tax ñu daal di sooxee loolu moo tax sax nag ba ñi nga xamante ni itam yëngu ci wàllum ñaw yi di tailleur yi ñoom it mbir mi daf leen laal bu baax a baax ginnaaw bu ministre bi jëlee dogal ni lépp lu xeetoog ngénte ceet wala mariage wala lépp lu xeetoog loo xam ne mën na jur ay doomi aadama di dajaloo daf ko tere loolu moo tax ba tailleur yi ñoom ba tey jëlee nag seeni bëccëg moom ak zéro ñooy daal yem Alioune Mbathie ah loolu lu ñu koy dundee mooy dund ko difficilement rek parce que malgré feebar bi am tamit tax terewul charge yi ñu doon war tous les jours moo ñuy war que soit ñu liggéey ñu bañ a liggéey tamit charge yi dafay nekk chaque jour moom kay dañuy xool nu ñu ko mën a ak li ñu dencoon à côté ñuy comp ci loolu de temps en temps pour fàtt yenn ruq yi quoi mais ñoo ngi koy dund moom franchement difficilement quoi ginnaaw euh, place Aline Mbaj bi biñ ko génnee doxaat euh, ay jéego jëm euh, ci kanam beneen place tailleur yi tam moom it di feelu Aline ci ay kàddu. chaque jour moom instant nii benn client instant nii lépp a taxaw fii moom dañ doon soog dañ doon soog am na saa ngénte yeeg kii xew yeeg mariage yeeg yooyu noonu xam nga ñawlu lu bari instant mais instant nii ñawlootuñ defatuñ dara toog rek ngay def doo gis client doo dara. waaw oh, vraiment métti na torop métti na torop instant moom ku ñu dimbale rek lañ bëgg moom instant moo ne di président de la république daal di nay dégager benn xaalis boo xamante ni daf ko jël jagleel ko ñoo xam ne ñu ngi yëngu ci wàllum artisanat jaarale ko ci seen ministère Dame Diop waaye nag li nar a nekk problème bi mooy ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllum secteur informel bi bokkuñu ci benn de métier buñ leen war a recenser mu nar a nekk problème loolu moo tax ba ba moo di ñaami di xam le ni. waaw ah, non. waxoon nag ñun euh, euh, Sénégal loolu moo nekk suñu gàllankoor dañ koy waxtaane chaque jour maanaam ñu euh, ñu nekk secteur informel bi nu ñu war a organiser woo dafa des normalement tey lii nii rek daf ñu yee kenn ku ci nekk war nga nekk ci organisation boo xamante ni bu yi amatee pour recensement yi di mën a yomb wala genre yooyu mais actuellement ni booy xol cinquante pour cent wala soixante pour cent yi bokkul ci benn organisation man bokkoon naa ci ay organisation yu mel ni ay FENAF ay genre mais presque depuis année. xanaa nag di ñaanal rekk ñi nga xam ne ñooy tailleur yi ngir mbas mi daal di fi gaaw a jeex bu baax a baax ndax boobu ba tey bu ñu sukkandiku seeni i kàddu lépp loo xam ni war na leen comme ay dépenses itam dara wàccu leen daanaka sax mbir yi dafa gën a yokku ndax dara duggatul lu jëm ci wàllum koppar jëm ci seen gafak. walum force Covid 19 bi nga xam bobu boobu ki di président de la république da ko mettre en place ngir xex li nga xam modi coronavirus fi ci Sénégal waye liñu ñu nak modi absence bu reuy absence bo xam dafa jaaxal fi Sénégal yi absence bo na waral ñi ka waral mooy euh, wa opposition bi ñom nak bobu ba ken kenn ben membre opposition bu nga xam ni na li nga xam moo alal wala lu mu mënti doon ngir euh, apporter aide ci état bobu ba nak ñu ngi leen di déglu mais dégguñu leen bobu ba mbokk yi internet yi ci wàllum aide alimentaire ki nga xam ni euh, moo di patron wu Planète Kebab moom nag moom lañ jox euh, marché yi nga xam ni moo di wàllum di indi beeg li nga xam ne moo di ceeb bi fii ci biir réew mi mu nekk Riyad Hachem moom nag li nga xam ne moo di ñaari entreprise am ñoo boobu leen marché bi benn bi mi ngi tudd Aventisol Benesiar la bien sûr ak beneen bi mi ngi tudd Afrian and Co moom nag euh, coow la lu dikkal fii ci biir Sénégal ba tax ki nga xam ne moo di Mansour fay nekk.

ceeb maanaam banque def teg ci yoon buñ kesusahan tak diwajibkan pada baik dengan jumlahnya melalui wahyu sama alami sebagai pasal pajimilah Allah yang mengerti jumlah alami Allah pada bahasa dasar tubuh jangan diminum lalu jika koper begitu uji susah nas miliar di filsafat jadi kalau di Malaysia development pengadaran dinamika sosial territorial territorial memerlukan perusahaan yang berkembang ci walum xex corona ba tay ki li nga xam modi état du Sénégal ñom nak dañu décider euh, prolonger li nga xam modi fermeture frontière aérienne ki nga xam nak euh, modi le ministre Alioune sar mom nak mo chargé bépp transport aérien jël nañ dogal li nga toxal date bi nga xam waron nañu wacce li nga xam modi moo manam euh, jëlaat vol yeeg dem yeeg dikk bi fi ci biir Sénégal ñom nak prolonger nañ ko fi ak le 31 mai. ginnaaw bi nga xam ni coronavirus laal na li nga xam ne moo di wàllum njàng meeg bi tailleur yi tamit waxi noppi ñi nga xam ni laal na la ñeneen moo di restauratrice yi ak tamit di jeunes ouvriers yi nekk fii si biir Sénégal ñoom nag ñu ngi yuuxu di wote woote ndax te ñoom sonn nañ ndax boobu ba léegi surtout ñi nga xam ne moo di jeune ouvrier yi amatuñ mënatuñu liggéey fenn ndax fu ñu toog di liggéey état bi ñëw yëkkati leen te ñu leen yëkkatee ñeneen ñi nga xam ni ci yeneen nationalité ñoom dañu seetlu ñooñu ñi ngi ci yooyu les places yi di liggéey Euh, reportage Elhaj Mamadou Djigal ñi di soxna yi yëngu ci wàllu njaayum lekk yi mo xam restaurant la wala gargot, jamono yi ñu tollu ñi ngi jànkuwanteel ay jafé jafé yu tar liko waral moy mbass mi ñu gën ko xam ci coronavirus mo fa jaar ba motax ñenn ci soxna yoyu le di woote walu jëme ko ci kilifa yi nguur gi na ki di président Macky Sall ngir ñu gëstu leen waa maay jaay fi ci grand bi ci télé bu bees bi waaye daal mbas mi moom metti na trop ci ñëpp waaye su suñu jaaykat yi moom dafa rawati parce que nekk ñu doon ñëw ñëpp kenn ñëw tut yaa ngi nii kotol yaa ngi nii yëpp a ngi nii mais dara doxut te bu fekkee ne fii lañ yaakaar di ci suturu ñu nag suñu njaboot te dara doxut dana metti ci ñun metti na ci ñun lool nag waaye nag jaam day sant bu fekkee tim suñu borom a ko fi indi yàlla na ko yóbbuwaat waaye daal moom metti na ci ñun ndax ku daan def cin lu mag ak cin yu ndaw yor say jànq ak say doom dem ba cin lu ndaw li sax boo ko tegee du jaar metti na metti na lool waaw metti na daal fu metti di daal metti na suñ amee ndimbal tamit ci la dàq waaye metti na daal metti daal def na ko metti ba pare tamit client yi ñi demoon dañoo muntu fexe ba ñëwaat amuñu oto yu leen indi ñii nga xam te ne que bool yi nga daan bind sax dangay gis koo xam te ne day dem këram parce que danaan comme liggéeyu ma naa ñibbi sama kër yow léegi yow ñi waroon bind ñu ñuy ñëw di lekk si fii bu ñu demee seen kër koy jaay am na ñoo xam te ne tamit dañu ragal pour lekk dañuy ragal pour lekk da nga xëy dama daan jaay ndékki jaay añ jaay reer mais ndékki moom instant arrêté naa ko añ bi daanaka li may sóor su ma ci lekkee maag sama njaboot mu jeex kon xam nga ni metti na reer moom kenn waxaale wu ko te nag nga bëgg a fay place bëgg a fay jànq loolu yëpp daal mi ngi ci sunu kaw waaye nag nañ ko sante yàlla daal te ñaan mbas mi sunu borom jëlee ko fi na ko fi jëlee lool mu daw lool nag waaw loolu daal lañ bëgg. waa ndimbal li ñuy wax ni dañ koy jox eh, néew ji doole yi tamit moom bu doon exi daal dana neex mais exi bi laa dul xalaat te ñi ko yelloo tamit suñ leen ko doon jox mu neex mais góobu ñi ko yelloo danañ leen ko jox ndax lii set du tax mu nga bañ koo am tilim du tax nga bañ koo am. natt la bu suñu borom wàccee suñu borom mi ko fi wàccee yàlla na ko fi tegg ginnaaw loolu lii di ndaw ñi liggéey ci wàllu raxas oto ak chantier yi lii di mbas mi laal na leen lool ba tax na ñuy tàllal loxo kilifa yi ngir ñu dimbali leen. déedéet mënuñ cee gis bopp sama sëriñ parce que la amoon loolu lañ amatul ay mu toll nii estade lañ ne woon mais dangay ngay nekk estade ñu ñëw jëlee fa bon doo am foo liggéey doo am noo def dangay ngay xel di dox di taxawaalu. te tey jii dama yaakaar ne tey ñun ay sénégalais lañ bon xëy na lool li ñu jugee moo ci la ñuy teddee ci la ñuy tërale suñu yaay ak suñu baay buñ de ins buñ toll nii mënoo dem dëgg ba toog mënoo liggéey te boo sàcc te boo jàpp te boo boo sàccee ñu jàpp la dugal ci kaso gi kon léegi après ñun nan la ñuy def ñun sénégalais yi stade lañ nekkoon di liggéey jëlal nañu fo pël Fuuta yaa nga fa toog di liggéey kon après ñun sénégalais yor suñu carte d'identité mun a toog votel ñu nekk sénégalais mais ñun après ñun kon après ñun ci ban rew lañ toll nii pour l'instant ni pour ñun jeune yi dañu naan jeunes yi sénégalais nangoo nangoo ñëw liggéey nangoo nañ liggéey mëno mëno gis liggéey parce que bo togué ñu la du fofu bo togué ñu la du fofu bo saccé ñu door la ci kasso gi kasso dañu xali fess deug na yalla ñun laveur ñun son nañ trop ba ci kanamu yalla son nañ trop ins buñ tollu amul luñ ñu mëno dem deug ba tok instant auto dawul démé ni ñun ouvrier yi nga xamné ci chantier lañu ñuy yëngu mënuñu bayyi place yi parce que mëno di liggéey suba ba ngon nga né do lek

ñetti borom kër ñoo fay nekk wala juróomi borom kër léegi boo ko joxee kër ga déjà problème mu ngi foofu est-ce que comprendre imaginer ñetti nit ñu bokk ndey ak baay te juboowuñ ci kër gi nga ne kër gi nga ko jox donc problème am na est-ce que comprendre te déjà bu nekkee ci yeneen kii la comme ay yeneen raison yi nii da ngay gis benn kër mu am ñaata appartement huit appartement est-ce que comprendre léegi huit appartement yooyu noonu appartement bu nekk ak famille bu boppam léegi nga ñëw nga ne kër googu ngay jox ndimbal loolu dina yéeme trop. waaye lu ci man di xew jamono yi ñu tollu ñi ëpp ci askan wi te seen loxo jotul seen gannaaw wéy di dunde yaakaar ngir mën a jot ci ndimbal li leen état bu Sénégal jagleel jëm ci wàllu dund bi. li nga xam modi walum confinement bi fi ci biir Sénégal ki di le ministre de la santé élection sociale Abdoulaye Diouf mom nak aduna ci néna ñi nga xam ñoo di wa comité national de gestion des épidémies heure bu ñu ki waxee ki nga xam modi di le président de la république pour ñu dugg confinement ñoom nag duñu si ben benn yoon dinañ duggal li nga xam modi di Sénégal en confinement pour mu mën a li nga xam modi di coronavirus keneen ki ci àddu ci bobu boobule mi ngi nekk le professeur Moussa Seydi néna li nga xam modi confinement di confinement euh, naaw bi nga xam ne kii di CNG ñoom waroon nañ daje ki nga xam ne moo di la président de la république ki ni démb ci de la république dogal buñ ci mënti jël rek ñoom dañuy ànd ak moom ngir mën a xeex li nga xam ni moo di coronavirus te kooku lee di le professeur Moussa Seydine moom gëm na ne li nga xam ne moo di corona bi gaaw na ci xeex ko bu ñu duggoon confinement mbokk yi ñuy seetaan keroog niki àllarba kii di le président de la république monsieur Macky Sall amaloon na ñaareelu euh, conseil des ministres boobu la ñi nga xam ne ñoom amal nañ ko ci euh, visio conférence moom nag euh, mi ngi ñaax ñi nga xam ne ñoo di ministres yi ñi nga xam ne ñoo di taxaw pour xeex wàllum coronavirus mu nekk le ministre bien sûr de la santé de l' action sociale mu nekk monsieur Abdoulaye Diouf Sarr moom nag xamal na ko ni mën na gën di lonkoo ak ñi nga xam moo di yeneen ministres yi pour ñu gën a mën a xeex li di coronavirus. mbokki internet yi lii ndar keppee xibaare doon na li nga xam ne moo di ña waaw waaye ñaawtee fii nga xam ni boobu ba léegi ñu ngi xeex a coronavirus bi waaye ñoom taxul benn yoon ñu arrêté seen i ay ñaawtee foofa leen nañ ca c'est-à-dire jàpp nañ fa juróomi personnes yoo xam ne ñoom dañuy yoroon drogue bu bari lu toll si 7 virgule 6 kilogramme euh, li nga xam ne moo di chanvre aigné fële tamit ca Mbàkke li nga xam ne moo di police bi ñoom tamit dañoo démanté li nga xam ne moo di bande malfaiteur ñu euh, wax askan wi rek ba tey ñuy